er ñu gën a mag ñu bari ñeme mhm. ndax jëmm ji ni mu mel te mu doon koo xamee ni dafa am tamit fu mu ñu teg ñun nii ndax yàlla daf def depuis des années mu jël dénkuñu lenn ci liggéeyam ci rawatina ci wàllu communication pour ñu jàppale ko ci te am fu mu ñu teg fu mu mën a nekk mhm. euh, dañuy jokkoo bu fi nekkee ñu seeti ko euh, bu nekkee moom kenn sax ñun daf ñu ubbil buntam yaatal ñu ba nga xamee ni pour nga gis ko sax du jafe mooy sëriñ boo xamee daal. est-ce amul ay bëkk néeg yooyu yu koy yu koy taree. gis gis ay nitam est-ce que am na. Hmm. ay mbir euh, lu ci mel ni ay valeur euh, yu nga xamante ni mu ngi ci yow gis nga ni moom moo ko def ci yow moom sa sëriñ. ah non du jeex. comme du jeex parce que sam dafa am lu mu def si ñu sam daf ñuy wax souvent euh, am na ko ko ko wax fan yee passé yàggul mu waxaat ma ko ne ma. sa doom Birahim yar bi nag ci moom ci yow la jóge mhm. mais métier bi nekk ci moom moom moo ko defal boppam mais borom daaru am na lu mu ñu yokkal parce que ci lu bari humilité bi sama amoon am ko moom laa gis ci moom mhm. mu gën ñi ci wa soññ xam nga may lay wax léegi nii amul bëkk nekk bu buy dox digganteem ak taalibe ku ko bëgg a gis da koy gis. ku ko bëgg gis da koy gis. ak anam boo ko mën a bëggee gis foo ko mën a fekk daf lay yaatal ubbil la day sax bañ. Mhm. nit bëgg ñëw ci moom gis ko ñu ñu taxaw ci di di nekk seen diggante. Mhm. da koy bañ daf ñu naan puus leen lan moo mhm. tax ngeen tey diw parce que dafa war a ñëw ci man muy fii muy sikóori muy humilité boo xamee ni ak yaatu boo xamee ni gis naa ko ci moom mu gën ñu ci mais surtout gëm suñu bopp ci lu ñuy def. fonk suñu waajur. macha allah parce que suñu waajur mën nañoo jur yar ñu mais souvent li ngay gis fii mooy nga gis doom boo xamee ne ni muy waxee ak waajuram. Mhm. day xaw a yéeme. day doy waar mais moom chaque jour daf ñuy sonn ci lool ak yeneen i jikko yoo xam ne bu ñu ko doon lim moom duñ fi duñ fi jógee mais lépp luy jikkoy nit. bu baax. Mhm. Mhm. mu ngi ci moom te mu ngi ci. mu ngi ci tàggat macha allah mm-hmm. alors bu ñu ñëwaatee un peu ci li nga xamante ni moo di euh, euh, le journalisme ban observation de manière générale nga am ci métier bi. ba je vais pas faire dans l'autoflagellation maanaam di doo suñ bopp mais métier la boo xamee ni c'est assez dommage bu ma xam nga may la sama seen jamono. Mm-hmm. ak suñ jamono dafa am différence. seeni jamono y avait tout toutes ces télé ni toutes ces radios. tout à fait ñun suñ jamono y a pas seulement de nouvelles télé de nouvelles radios mais il également les réseaux sociaux. qui joue presque un rôle boo xam ne kenn mënu ci dara. Mhm. ngay gis koo xam ne day yore téléphone am la yore ak micro am ubbi chaîne YouTube am il se dit journaliste euh, ñuy wax lu nekk di dox leen lu nekk ki lay gën a mën a jaay titre. Mhm. mooy ki lay gën a mën a wax wax bu ñaaw tudd nit ci tudd bu ñaaw. Mhm. kooku mooy gën a jaarale que ki nga xamee ne euh, dafay toog di def le métier comme mhm. on dit euh, de manière euh, professionnelle bareetul am na mais bareetul et dans nos différentes rédactions le problème qu'on a mooy on a plus ces anciens ñi nga xamee ne dañuy ñëw di la jàppale ci rédaction yi man bi nekk nekk Walfadjri par exemple on avait des anciens yu ci mel ni ay Aliou Ndiaye El Hadj Assane Gueye Souleymane Niang entre autres ñoo xamee ni mhm. dañu doon jàppale dañu tàggat mais nekk Sud FM on avait les Omar Diouf Fall léegi loolu dafa tumuranke ci rédaction yi oui on avait Abdoulatif Coulibaly entre autres c'est-à-dire on avait des gens ñu doon mën a encadrer ba nga xamee ni mhm. yow da ngay des ci métier journaliste bi maintenant boo xoolee rédaction yu bari amatul ce sont des jeunes ñu mel ni man ñooy ñëw yaakaar ne xam nañ lépp di euh, duñu rectifier jeunes yi fa nekk. wala mhm. les moins jeunes aussi ou les plus jeunes plutôt. Mhm. te après loolu dafay indi euh, problème mais c'est un boo xam ne. Mhm. c'est un métier noble waaye war nañ ko defaraat. lan lañ ci war a defaraat pour yow. lu bari. comme déjà kan moo ci bokk ak ku ci bokk. Hmm. tout le monde se dit journaliste. il suffit ma yore sama téléphone comme je disais tout à l'heure ubbi sama chaîne YouTube ba boo génnee euh, dajeeg Birahim Touré cher confrère nga koy wax. <laughs> alors que forcément bon euh, mënuma la wooyee confrère. Euh, je te fais une confidence. Mm-hmm. mooy euh, bi ñuy defar ay carte nationale presse. Mm-hmm. dama toog lu yàgg ma ne non je veux soxla ma ko pour une raison dama bañ a jël man carte nationale presse. Mm-hmm. dajeeg benn tiktoker wala youtubeur mu yore même quatre national de presse bi dajeeg man ne ma cher confrère te xam naa ne du sama confrère du sama consoeur. c'est pas que dama damay siis mm. mais jàpp